moo la ko may. bi.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

wala ngeen woote ci seen succursale ci lu 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24. kawe na suñu jot doonte sax yombul woon ndax pexe bu dul pexe jinne nit ñi def nañ ko pour saboter suñu màggal ba lenn ci kilifa yi sax duñu dalal ñi àndoon ak ñun nekkoon ci délégation bi xam nañ ni ñuy wax waaye yàlla may ñu ci loo xam ne defe naa néew na ku ko ci am. ndax ay kilifa yu màgg màgg dalal nañ ñu bernde ñu waxtaan ak ñun waxtaan yu am solo yoo xam ne yéen ñëpp siiwul ngeen ko ci réseaux sociaux yi kon loolu li muy wane rek mooy euh, dëggay mucc mën nañu wër ci nopp nit ñi di wax di essayer yàq deru nit ñi waaye kilifa diine yi kenn mënu leen manipuler yàlla na ñu yàlla fayal yàlla na leen yàlla bàyyi suñu kanam ci lu yàgg yàgg yàgg euh, dégg nañ seen dénkaane te loolu daf ñuy gën a soñ ñu gën a góorgóorlu li muy wane rek mooy ñu ngi ci yoon bi euh, fii ñu nekk nii jóge ci xew-xew bu ni mel nga xam ne daanaka jeexagul sax waroon nañu jombale peut-être di wax ci wax yi nga xam ne dafa jëm ci mbirum politique ak mbirum àdduna waaye nag dafa fekk nii bu dee ñu ko seqal teggi wuñu waroo teggi dégg nañ tam yéen ñëpp seen woote ñu bëree bëri bëri bëri wax nañu ne waruñoo àddu ci mbir mi waruñu cee tontooti mbir bi dañ ko war a bàyyi noonu parce que sénégalais yi kenn ku nekk am na ràññe mun na am capacité ràññ waaye dafa fekk ñun suñu duggee ci mbir dañ koy topp ba mu jeex parce que lu ko may rek mën na bàyyi ay lënt-lënt ci xelu ñenn ñi. te nun dafa am lu ñu sénégalais yi xamee wóolooñu loolu mooy dañuy wax dëgg jëf dëgg loolu moo ñu andi ci politique te noonu la ñu doxalee fii ñu toll nii te mosuñoo wax sénégalais yi lu dañ wax ji mun na bëri politique bi ñu jax essayé jax carte gi am ñu leen di bindal ñu leen di bindal ñu leen waxal leen waxal waaye bu ñu demee ba ca cappaandaw bi fu muy mujj mooy la Ousmane Sonko waxoon muy dëgg moo tax du ñu dara. ndax suñ ko bàyyee noonu ëllëg da ngay xëy lépp ñu affiché ko ay titres yu rëy rëy rëy bindee ko noo xam ne mën na ëllëg sénégalais yu bëree bëri bëri moo tax ñu ne tey dinañ ci wax tey nag lañ ciy mujjee wax tey lañ ciy mujjee wax waaye dinañ ko wax ba mu jeex tàkk ndax ku yàlla may amoo loo nëbb ku yàlla may amoo looy nëbbatu ci wàll wi ñuy yëngatu muy wàllu politique suñu loxo ci kaw amuñu lu ñuy nëbb te dinaa ci dellu boo yox yoxee ba ñi nga xam ne ñoom dañoo tilim seen loxo tilim war a mun a ut moroom parce que bu ñu dooree politique ba léegi bu ngeen seetloo ñoom ñu ni ñoom dañoo tilim te Sénégal yëpp xam nañ ko waaye lenn rek la ut lu ñuy def ba gàkkal deru Ousmane Sonko ba Sénégalais ne moom ak gars yi benn lañu moo tax saa suñu tegee tuuma. dañ koy teggi di wax tamit rawatina suñuy militant suñuy sympathisant ne leen politique dafa am nu mu demee politique dafa ànd ak polémique politique dafa ànd ak coow ku yaakaar ni politique c'est un long fleuve tranquille boo xam ne yow kenn du la pexeel kenn du la sosal da ngay nax sa bopp li am solo rek mooy lu ñu mën a ruumanaat rek lu ñu mën a nas ba toog rek àdduna du dox ba ñu fekk la foofa loolu rek moo am solo mais tuuma dañ koy teggi ndax lu ko mooy mu jax-jaxal xelu nit dañ naan seytaane waxul dëgg waaye mun naa indi lënt ci xelu nit ba tax nag nee naa tey laa ci wax tey laa ci tey laa ci bi ñu bi ñu commencé ba léegi waxuma ci dama doon bind sama page Facebook presse bi jël keneen jël keneen jël waaye kenn dégg bu ma ma àddu ci tey laa ci wax tey laa ciy mujj waaye njalbeen may commencé wax dama bëgg ñun Sénégal yépp ñu dëppoo ci lenn loolu dafa am solo ci li may wax liy ñëw mooy tey dañoo xëy génne audio ojo ba ki ko waroon génne dafa daw res moom ndax dafa taxaw wax Sénégal yi ne su ma nee brib ma ne ko brib waaye xam nga ñu ne da def course 100 direction bii ñu ne la prime nga daw jëme côté bari di ut kooy ñëw teg mu dawal la loolu ci ragal la bokk ba tax nit ñi ne ma nag ñi mu yebal nga xam ne bëgguma tudd sax tur bi ñu leen tuddee waaye Sénégal yëpp xam na mooy xeetu ku yooyu ñooñu waruñoo woon doon sama naw la yi may tontonteel waaye na ne dama ne mbir mi nañ ko jeexal mu jeex mu leer nañ ci bopp Sénégalais ñu jublu ci leneen ma fàtte ni suñu d'accord ñun ñëpp ni audio bi léegi mooy référence bi te ñoom ñoo ko génne kon ñoom dëggal nañu audio bi xam nga su doon maa génne audio mun nañ ne sax am na nu mu mel mais ñoom ñoo génne seen audio amul leneen lu mun a doon seede tey ci wax ji ñuy wax lu dul audio boobu parce que keneen ku wax. dafa far fi mu far ba noppi doo mus a gis koo xam ne dañoo yoon sànqalam teg ko fi ñu ko teg mu génn leen wetti ba ci diine gi ñu gëm dafa am ay charte pour nit mat seere kon audio bi ñun ñëpp d'accord nañu tey mooy élément de référence loolu dafa am solo audio bi nee nañu gën saa gudd 30 secondes def wala 28 secondes mooy élément de de de référence. audio boobu la ku ñuy wax Mansour Faye di ministre de la république wàcc ba ci suuf ne moom wër na di fortaatu ay audio yu muy génne audio boobu la génne bi mu génnee xam naa ni sénégalais yëpp am nañ déception parce que ñëpp jàppoon nañ ojo bi lu doy waar nekk ci biir audio bi waaye bi audio bi génnee sénégalais yëpp am nañ déception waaye li gën a am solo mooy ojo bi daf noo dëggal ñun dinaa ci ñëw léegi moo tax bi ñu gisee ni audio bi doyul wala audio bi dafa wëlbatiku contre ñoom la ñu yebalaat ay nit ne leen dem leen def interview pour mottali waaye ma dellu si la ma doon wax audio lañu ñu yéeg la ñu annoncé woon Sénégal ne leen am nañu audio boo xam ne bu ñu ko génnee àdduna tukki génne nañu audio bi Sénégal yëpp dégg nañu muy benn ma fàttali lan mooy wax ji wax ji mooy moom Mansour Faye dafa génn ci émission ne moom buñ ko woowee fi mu war a layoog sénégalais ci koppar bi ñu ko dénk du fa dem ba mu ko defee ma dem sama tournée Saint-Louis journaliste yi tàllal micro ne man lii Mansour ma fay la wax lan nga ci xalaat ma ne leen bu soobee yàlla xaw ma tey la xaw ma subal xaw ma gannaaw su waaye Mansour Faye dina layoog sénégalais te nekk goro président la république terewul nit mu layoo parce que dañu laa dénk suñu ko parte du benn milliard du ñaari milliard waaye ay téeméeri téeméeri milliard la Mansour Faye yoroon ci loxoom am lu mu ko yore te dinaa ci ñëw léegi loolu mooy wax ji te loolu rek moo intéressé Sénégalais yi parce que Ousmane Sonko Mansour Faye gisee nag moom wala gisoo la moom kañ la gisee loolu yokkul dara ci Sénégal wàññiwul dara ci Sénégal waaye li gën a am solo ñu bañ koo mooy téeméeri téeméeri milliards yooyu mu yoroon war koo layoog sénégalais te nee na lànk na du ko layoog sénégalais te loolu naa ci waxaat ba si kanam ba ma ko tontoo bi ma waxee loolu mu dem ci ëllëg sa émission mooy li ngeen doon déglu léegi audio ne moom ñëw na sama bureau sukk saraxuma ñaan ma audience loolu dafa am solo ñëw wax jooju la ñu tontu ñun ma tontu ne bi di Sénégal ba léegi musuma gis ku mun a nal ba bi Sénégal di Sénégal ba léegi dundaguma ba gis ku mën a nal ba mel ni Mansour Faye parce que li mu wax amut mu dellu si def ay génnam ne am naa sax lu may génne def déclaration cinq minutes bu koy firndeel lii mooy les faits audio boobu nag moo génn tey ojo boobu daf ñëw dëggal parce que ñoom fi ñu bëgg a def placer bi mooy dafa ne woon musul gisanteeg Mansour Faye wala li déedéet dama ne Mansour Faye dafa wax lu dul dëgg te ojo bi andi na ko ñaari yoon bi ci njëkk mooy bi muy wax loolu moom li mu ci jublu mooy fexe ba dugal lënt lënt ci bopp Sénégalais yi ba ñu ne Ousmane Sonko mii di jaay opposant radical dafay opposé wu le matin lu ne mu yàq ko gars yi ngoon mu dem di yelwaan pour Macky Sall recevoir ko loolu mooy premier bu mu bëggoon dugal ci bopp Sénégalais yi parce que Sénégal dañoo dem ba gëmatuñu kenn ci wàllu politique jàpp nañ ni politiciens yëpp ñoo yem dañuy wax ci kaw waaye ñu ngi négocier ci suuf loolu mooy premier nal bi mu bëggoon nal fexe ba dugal lool ci bopp Sénégalais ñaareel bi mooy li ne man maa dem sàkku ci moom pour mu dalal ma pour ma ñëw ñaan service audio bi man maa ko def mi ngi fii sama téléphone maa ngi ko def le 29 septembre le 28 septembre la Mansour Faye génn wax li mu wax ne man damaa def loolu ñëw saraxu ko ñaan ko audience le 29 septembre ma jël audio bi enregistré ko bu may jógee ndar envoyé ko Cheikh Issa Sall loolu nag ci suñuy pexe la woon te lañ ci bëggoon am nañ ko ndax bi mu defee déclaration rek laa xam ni dañoo ndal seen plan boo xam ne moom day ñëw wax li mu wax après ñu dem génne seen seede mu ñëw wax li muy wax te ñoom ñépp ñoo bokk seen parti APR ma ne war naa fexe ba mu am benn élément boo xam ne mooy dox suñu diggante suñu muusoon tuuti xam ni man mii Ousmane Sonko Mansour Faye mënul wax li ñuy wax le 28 man ma am légèreté sàggan ba di jëf benn audio envoyé ko Cheikh Issa Sall suñu muusoon tuuti rek dinañ xam ne am na lu laxasu si biir boobu jamono am na lu mu ci doon parce que xamoon naa ni boo ko defee Cheikh Issa Sall jël ko yóbbu ko jox ko ko loolu nag ñu ngi ciy sant yàlla parce que booy jëflante ñoo xam ne gannaaw lu ñu wax katu dëgg. waaye topp nañu alalu réew mi di góox di góox ba seen xel yi màccatul xalaatatuñu li ñu war a xalaatee su ñu defee seen pexe da ngay teg sa pexe ñu mu dem annoncé audio ba audio ba ñaar laa ci bëggoon leeral ci Sénégal yi bu ci njëkk damaa fixé date bi 2013 2013 man nekkagu woon ci politique Pastef ñu ngi ko créé en 2014 at ca gannaaw la ñu créé Pastef 2015, j'étais secrétaire général honoraire du syndicat des impôts et domaines. kon su buggee gëmloo ni Ousmane Sonko opposant moo dem naan damaa damaa bëgg audience wala damaa bëgg lii wax na lu dëkk boobu j'étais secrétaire général honoraire du syndicat des impôts te dafa am solo ci chronologie bi ñaareel bi am solo mooy te wax naa ko ci audio bi mooy moom Mansour Faye moo ñëw sukk sama kanam ñaan na audience ndax Cheikh Issa sal moo nekkoon secretaire général moo ma woo man ne ma Serigne Ousmane dama la ñaan lenn sama patron daf laa soxla nee na il faut ngeen toog bi ma ko nee nag ñoo bokk promotion la ma ne ñaanal ma sàkkul ma pour que ma gisee moom ñu toog waxtaan te wax naa ko ci audio bi kon audio bi nga xam ne mooy suñu référence ñun ñëpp wane na ni ñaari. bugguma utiliser baat boo xam ne parce que ay kilifa dañ ñuy déglu waaye ñaari wax yu méngoowul la dëgg ci ci li Mansour Faye wax wax na ko ci te bi mu koy wax journaliste bi sax moom dafa tiit ba ne ko yow xanaa loolu lu yàgg la doo ma ne Ousmane Sonko bii la journaliste sax bi ngi wax après radiation du radiation 2016 la ñun 2014 dañu créé parti ay nit ñëw gis ma ne ma dañuy créé suñu parti te yow rek la ñu doylu pour nga ñëw jiite ko 2014 2013 la ma sàkku yónni Cheikh Issa Sall ne ko dama la ko ñaan rek damaa bëgg nga fexe ba Ousmane Sonko ñëw ñu toog ma wax ak moom te bi mu ñëwee toog loolu mooy ñetteel boo xam ne parce que ñoom dañoo teg seen plan ne dañ koy génne par pàcc man nag lépp laay jeexal tey parce que fi mu ne nii li ñu yoroon yëpp génn nañ ko te maa ko tey parce que su ma teeloon wax ñu toppaat ci wax ji di wax fi ne nii audio la ñu waxoon génne nañu audio bi. ñetteel bi nga xam ne moom la ñu waajaloon nag pour après ñëw ci mooy lan lañu lan moo ne woon ci slide euh, audience boobu gannaaw ma Cheikh Issa toppee ñaari fan wooma wooma wooma ma ne ko ci li ñu séq maak yow parce moom dafa am fu ñu jaar waaye du ma nekk fi def déballage parce que bu boobaa damay wàcc seen terrain ñoom même réaction bi mu am bi ma ko envoyé audio bi mi ngi fii munoon def naa ko capture d'écran munoon nañ ko génne waaye bu ma mel ni ñoom nit da am loo ko ëppale waaye bi ma toppee ñaari fan ba ma nangu ñu gisee bi ñu toogee ma ñëw ñu toog mu commencé <laughs> waa sëñ ko yow daal yow nag tàng nga yow daal yaa ngi ñu sànni xeer rek. li mu doon nangam nangam ah ñun ñu ngi doog a toog régime bi doog toog nga ñuy sànni xeer man daal li ma bëgg mooy nga wàññi xeer yi ah ñu xool lu ñuy def man sax yow tu es le président dafa soxla ñu mel ni yow mun naa jàpp sa loxo yóbbu la ci président nga am audience ma ne ko monsieur Mansour Faye man soxlawuma audience avec Macky Sall la may def it dama koo def ci cadre mandaa boo xam ne syndicat bi ma bokk moo ma ko jox wax loo ma ma wax. te fileeg maa ngi gëm ni dëgg dëgg laay défendre du ma wàcc ci loolu kon du ma ñëw fii nga naan ma ay ma yóbbu la ci Macky Sall ngeen wax bi wala ngeen wax laa nangam nangam noonu la audience bi jeexee ma génn bi ñu génnee laa ne Cheikh Issa su dee ñii ñoo war a jiite réew mi gisuma ëllëgu Sénégal te lii may wax nii bu dee am na lenn lu ciy dëgg lu dul dëgg billaahi wallaahi wa yàlla ma yàlla la te Sénégalais yi xam ngeen ma xam ngeen ni musuma leen wax dul dëgg dama ko waat nag su dee ñoom génn nañ taxaw waat dootuma àddu ci affaire bi yàlla moo ñuy àtte bi yawmal qiyaam bu dee ma am na lu toll ni tarfa tey lu dul yàlla la mbir mi demee ñu ma xam nag nee naa leen état bi ñëw mooy ñëw ne lii lañ doon wax xam ngeen jamono jooju ni mu tombé. dafa tombé ñu lancé CREI bi daal di jël liste vingt cinq personnes ne ñii ñoo lekk alalu réew mi daal di def bruit bu dul jeex fii man ma jëloon ci ay position yoo xam ne dama koy assumer ne CREI bi ab tappale la justice taxu leen a jóg politique moo leen tax jóg te ñun du ñu nangu lu jël ñett ñeenti sénégalais sacrifier leen ba pare ñoom ñu toogaat parce que suñu doon def CREI dëgg Macky Sall du ci mucc. ma def ci ay ay ay ay articles yu ma bind en tant que secrétaire général honoraire du syndicat loolu dafa am solo de duggaguñu woon politique ñu dellu si ma def ci ay émission bi ci gën a siiw mooy émission bi ma def ak Pape Alé Niang 2STV daal di démonter li ñu doon wax yépp pièce par pièce ñu toog ñu convoqué ma CREI boobu man maa ne woon chef de la brigade immobilière aux impôts et domaines ma ñëw enquêteurs yi jox ma benn fichier bu gudd a gudd ne ma li yëpp ay société immo civile immobilière la dañu bëgg nga wax ñu yan ñoo ci ay société civile civile immobilière yoo xam ne waa ancien régime bi ñoo ko moom bañ ma ko joxee ma toog xool ne bii de société Birbasi la tudd Macky Sall moo ko moom te musul fay lépp d'ailleurs envoyé naa ko avis de vérification bii de euh, euh, tel ministre moo ko moom xam naa ko ñu ne ma déet Sonko ñun laajuñu yow dañ la ne waa ancien régime bi wax ñu lan nga ci xam ci li ñu moom man leen déet da ma jox liste dama leen di wax li ma xam ñu ne ma entretien bi jeex na may leen ah ana PV ñu ne ma non doo signé PV dañ la woowoon rek comme ku war a am xam-xam ci mbiri comme yaay gérer brigade immobilière mais jaratu ko ci cadre boobu yéen a fàttaliku boobu la la envoyé avis de vérification Macky Sall président de la république mu ci société civile am ma envoyé ko ko Mermoz gi mu dëkk ñu ne nekkatu fa mi ngi pare ma ne agent bi yóbbu ko pare ma ne woon coow bu jeex ñu convoqué ma ministère ne ma mënatoo nekk chef de la brigade immobilière parce que tu as ce que tu as fait c'est une faute lourde ma ne leen Macky Sall citoyen sénégalais la bu amee société dañ ko war a vérifier ni ñuy vérifier beneen société bu dul moom kon du ma fi jóge ci brigade immobilière ci ci cadre boobu boobu man maa nekkoon secrétaire général du syndicat des impôts ñu gudd buñ may ci jamono jooju la Mansour Faye sàkku saraxu sukk jonkan yónni Cheikh Issa Sall ne ko dimbali ma rek nga woon ma Ousmane Sonko il faut ñu toog ñu waxtaan waat naa te ñi ku ma xam-xam ne ni du waatal dox ndax xam naa la mooy valeur waat lii mbokk yi mooy mbir mi ma feddali ni musuma rencontré autorité politique bu APR ni avant ni après ñaar ñi ma mos a rencontré mooy bii ma wax ci Mansour Faye te boobu duggaguma politique waaye 2014 ba léegi bi ma duggee politique musuma rencontré ab autorité politique bu APR lu dul moom Macky sal ci bi mbël bi bi bi feebar bi de commencé mu woo ñépp def ma dem uyu ko bëccëg mbir kam génn sama déclaration ngeen dégg musuma rencontré du ci guddi du ci bëtëg du lu ñuy làq musuma toog ab koo xam ne day politique ak affaire ñu naan dañuy waxal dañuy ruumalaan loolu ko essayé dugal ci bopp Sénégalais da ngay wax lu la neex bi ma commencé liggéey ba léegi musuma demander une audience a une autorité politique musul am man lañuy daw sama gannaaw di ma demander audience du ma toog ñaari fan ñetti fan une semaine te nit ñëwul taxaw ne ma Macky Sall daf laa bëgg a gis te su ma ko waxee yéen Sénégalais ngeen koo gëm. léegi nag li ci audio bi ki sàkku moom ne dama laa bëgg gis su dee am na kuy saraxu moom lay doon ndax inverse bi mënul nekk lii nag nee naa tey laa ciy wax épuisé naa ko demee mun nañu génn naan dafa ñëwoon ñaan pour tay bu njaay pour Masamba pour ma Mademba dara du ci dëgg lii moo ne woon suñu suñu entretien 2013 duggaguma ci politique ma yokk ci nag nii lii lépp ay li tubaab daax contre feu la xam nga ñoom ni ñuy fonctionné mooy bu ñu demee ba sës ci miir bi ñu xam ni jàpp nga rek ñu ne naa taal ab daay fële gars yi daw di fay daay bi mën a rocceeku moo wax lu leer fii Mansour Faye Mansour Faye ba muy ñetti yoon munoo raw fii ci senegal parce que Mansour Faye sénégalais dama bëgg ñu xam li ëpp ci problème ñuy jonkoonteel Mansour Faye mooy responsable bi ndox mi ñuy wax nii Mansour Faye mooy responsable ndax moo nekkoon foofa ba ñuy def la ñuy def ba jël suñu ndox jox ko waa Suez alors que SDE moo jox moo amoon meilleure offre bi mu jox ko waa Suez ñooñu wëlbati ko jox ko ay camion yuy fa yuy ramasser mbalit mu yóbbu ko Saint-Louis loolu la ñuy wax corruption tey Suez mënul gérer suñu ndox bi chaque jour kuy xamee loolu responsabilité Mansour Faye la ñaareel bi problème assainissement bi ñuy wax nii sept cent cinquante milliards yi moom moo ko doon gérer bëgg après élection yi wala juste avant élection yi lañ ko jox leneen waaye yemul foofu bi ñu nee euh, euh, euh, feebar bi dugg si na corona bi ñu ne budget mille milliards ceeb beeg diwlin beeg ñoom seen ci loxoom lañ ko teg kon boo xam ne lu mu tuuti tuuti yor nga suñu 1500 milliards yoo xam ne sa loxo la tegu lu bokkul ak yeneen ba pare nga ñemee manqué respect sénégalais ba mun a taxaw seen kanam ne leen su ma of nag waaye du ma fa dem ma ne Mansour Faye ci nii wala ci nële day gàtt wala day gudd yow ak ñi mel ni yow mënu leen rëcc di ngeen rendre compte dans ce pays là loolu rek mooy le débat boo xam ne moo war a intéresser sénégalais yi te nag benn responsable moo moo moo moo moo mooy responsable bi mooy Macky ndax Mansour Faye nga xam ne munoo ne lii la jàng munoo ne lii la xam lu mu dugg mu lënt nga jël ko jël ministère bi gën a rëy ci suñu ministère yi jox ko ko lu diis ci Sénégal nga jox ko ko lépp nag pour waajal dauphinat mooy lu ñuy fexe ba moom mu wutu fi ndax Macky Sall ragal na ragal boo xam ne ci li mu def ci réew mi jàpp na ni su fi jógee kenn rek moo mën a toog mu mucc. mooy Mansour Faye wóoluwu ci Amadou Ba wóoluwu ci Matar Cissé wóoluwu ci Mimi Touré wóoluwu ci wóoluwu ci ñoo ñëpp il faut mu écarter moo tax tey ñu koy xàllal pour mu mun a am ay milliards yu mu demee nit ñi ñàkk seen xel lañu yor mu leen fexe ba nax leen la ca des nag mooy ma koy wax ak sénégalais yi di ko wax ak suñu waa parti politique c'est pas un long fleuve tranquille politique ak coow bu sew ñooy ànd même li ñuy wax les plus grandes démocraties da ngay toog ñu fexe ba génneel nit ay dossier wala yu demee noonu kii doomam dafa doon def affaire ak Russie kii jabaram dañ ko employé ci mairie Paris kii lii kii lii loolu ak politique ñoo ànd bu leen yaakaar ni ni ñu bëgg a politiquer dañuy toog rek te gars yi ñu pexeel duñ sosal duñu lii duñ ñu lii dañ cee war a préparer Pastef dafa judd ci loolu moom moo libal leen yu gàtt rek. fàtteeku leen dañoo commencé rek ñu commencé génne nañ fi bi ñu génnee waxu impôt député yi coow bu ne am na fi fu mu mujjee ñun ñoo am dëgg ba nit ñi loolu li may publier sama bulletin de salaire gis ngeen fu mu mujjee ñu teg ci tuuti ñu ne euh, société nationale yi nga xam ne ñoom it du ñu ko l'impôt loolu bokk na ci li andi sama radiation ñu tegaat ci tuuti ñu créé ci benn dossier Almadies di yéen a koy fàttaliku. daal koy réel def ay plateau télé ne waa ji dafa dagg ay suuf fële almadi de def ko lii nangam nangam jóob si fekk dara amu ci tey gis nañu résultat bi ñu dawaat tuuti ñu génne fi ab dossier ne moom moo ne nañu daal dagg li leen ci ab dossier ne moom moo ne nañu dajale ñi fi mus a nekk yépp président dañ leen door ay bal ñu de créé fi coow boo xam ne bu dul jeex ba intervention président Abdoulaye Wade ñu doxaat tuuti ñu ne ah moom de société bi ñuy wax Tullow Oil moo koy financé moo koy jox xaalis benn journal boo xam ne nee nañ ci journal yi ñu gën a liir fii la ci groupe de presse bu ñu gën a suivre daan koy def titre bu rëy ne cent quatre-vingt-dix millions xam nga la ko société boobu jox ba société boobu bind démentir ne ku ko waxati ma porté plainte ñu dem bay dugg campagne xam nga Sori Kaba tudd xam nga daa di génne ne russe yi ñoo koy jox xaalis su xamoon russe russe ñan ñooy russe yi dina dina dina dina xool bu baax balaa muy <laughs> génn génne lool ci gémmiñam fa mu mujjee xam nañ ko ñu toogaat ne dañ leen sosal ba ne léegi dañuy déposer ay plainte ci pétrole beeg nangam nangam def fi show bu dul jeex man de ba léegi maa ngi xaar ñu andil ma convocation wala assignation sax ne ma plainte nañ dara ñu toogaat tuuti. ñu génne fi dossier 94 milliards bi yéen a koy fàttaliku ñëpp ne Sonko day dem kaso jàppal bàyyi dem ne def nañ seen plainte léegi léegi lii of nag bi mu génnee rapport am fi mu mujjee mooy ñi ko ñi ma tuddoon ñëpp of nag def nañ leen yóbbu ci kanamu yoon parce que dañoo sàcc xaalisu réew mi yi gis ngeen ne ñu jël vidéo dagg ko jël ci parti ci li ma wax man pour gëmloo nit ñi ni soo ko nee bu bu bis bu nekkee président. Euh, xew-xewu diine yi am Sénégal yëpp da ko fiy dindi kon sos ki yàgg na te jeexagul nag nañ ko dugal suñu bopp yi te waajal ko te man mënuñu ma ne bul ci àdd bul ci wax parce que dafa am mbir fi muy toll yow mi mu concerné yaa ko mën a leeral tey ñu bëri dañ ma naan yow sa interlocuteur président de la république bul wax ak waaw sama interlocuteur président de la république la waaye mënu ma nekk député ci askan bi jiite parti boo xam ne day xeex nger di xeex pour bon gouvernance pour ñu yor réew mi ni ñu ko war a yoree ni mu rafetee ñu bàyyi détournement yi ma dem ñu ne ma ab ministre nee na suñ ko woowee ci li mu doon yor war koo sellal of nag du fa dem ma ne du ma ci tontu parce que man Macky Sall rek laay waxal loolu nag pour nit ñi comprendre bu dee nag ministre boobu da ngaa tontu wax ci moom mu wëlbatiku di ut diversion dem ci tere wax lu dul noonu moom moo bi waaye ñun ku ñu woo dañuy dem ba mu jeex. parce que amuñu lu ñuy nëbb amuñu lu ñuy ragal loolu moo ñu may fi ñu toll ni ñu mën a nekk à l'aise te politique nga ñaar moo mun a am soit nga ne muut dem tool yi ne yoon sama yoon newul ci li xew ci réew mi soit nga ne déet damay opposé wu taxaw frontalement opposé mais opposition opposition boo koy def ñi ngay dóor ay coup ñoom dañuy essayé fay tey bu ñu amoon lu toll ni tarfa tafayn ci man maa ngi kaso ndax yàgg naa leen lancer défi def naa fukki at ak juróom administration fiscale l'impôt nga xam ne mooy li gën a sensible ci xaalis ak ci suuf keroog bi ñu ma dàqee ko dama def sama déclaration patrimoine ne leen lii ak lii laa am benn kër laa am benn oto laa am néeg nii ku mën a génne am ngeen renseignement généraux am ngeen euh, euh, euh, administration am ngeen ñu leen wax waxal la ñu leen di bindal bu ngeen mënee génne un centimètre carré boo xam ne maa ko moom wala ngeen mën a génne compte bancaire lu weesoo li ma wax ni moom laa am dama tolloon cinq cent mille bu ngeen ñëwee autorisé naa leen ngeen yóbbu ma kaso boobu ba léegi mënu leen génneel dara ne Ousmane Sonko def na fii kon li am solo du li ñu lay sosal li am solo mooy loolu bu mu mës a ne sos yi dina ñëwaat dina ñëwaat dina ñëwaat waaye il faudra à chaque fois ñu setal ko bu mu set wicc bañ a bàyyi dara lu lënd ci bopp Sénégalais yi may fàttaliku nag. nay fàttali pour daaneel bi lii waru woon sax jël soin bu bëri si ñun waaye fàttaliku leen nii jamono juñ ci tolloon coow li bëri woon na trop trop trop ba il a fallu ñu topp ko ba mu jeex ñu doog a ci leneen lii munu mënuñoo divertir ci l'essentiel mais il fallait ñu def ko ndax suñ ko bàyyoon nii lenn ci suñuy militants nañu am lënt leen seen bopp lenn ci suñuy sympathisants nañ ko am lenn ci sénégalais ko am mais l'essentiel mooy la mooy moom Macky Sall dafa tëkk woon ñépp ne oo fañ fañ fañ fañ ku tëgg na samp naa sama ndënd pour débattre ak Sénégalais yi ci yorinu réew mi rawatina li ñuy woowee assainissement balaa muy daaneel ma ma ñëw daan balaa muy pare li ñëw daaneel ndënd loolu nag su dee dañoo nekk ci làmb lan moo ci des dañoo war a sëkk bëri débat laay woo Macky Sall ni mu ko waxee woon moom débat public télévisé télé yépp taxaw ñu war a ni moo ni mu yoree réew mi moo gën a ñaaw moo gën a salte ci ni ñu mus réew mi bi indépendance am ba léegi bu dee moom li muy woote dëgg la ci moom ndax dafa ne dafa bokk ci deret bu noble boo xam ne ay guerrier la woon ñoo doon xeexal nit ñi ba tax mu tëkku nit ñi ñu woo ko ci xeex boobu du xeexu bant du xeexu jaasi xeexu xalaat la xam-xam ñu ne ko su dee wóolu nga sa bopp ñëwal ñu def débat boobu loolu mooy l'essentiel tey Macky Sall la ñëw sëgg ñu def débat bi ñaareel mooy nee na lancé na son plan de relance économique ma leen wax ni loolu du plan de relance économique plan d'ajustement structurel la Sénégalais yi nee naa leen confiance dox la suñu diggante la ko andi mooy musuñoo wax lu dañ te juróom-benni at rek la def ci politique. tey cofeel am na suñu diggante parce que xam ngeen ni ñun ñoo leen toogal fii di leen xeexal te xam ngeen lu ñu leen mës a wax rek dëgg la kon su ma leen nee Macky Sall mënul redresser sa pays laa gëm leen moom Macky Sall bu muy door la lajj ndax musul am yéene yor réew mi ci ci ci anam yu set mosul am yéene xeex guerre jël ay mbokkam wër leen bu nekk tey ay multimilliardaire lañu musul am yéene am gis-gis boo xam ne pour intérêt sénégalais yi la waaye yéene gi mu amoon mooy toogal fi France waaye tey yematul ci France ma nga ca Turquie mu nga ca keneen ak keneen moo tax keroog bi ma demee Casamance mu am ko laaj ne ma waaw li nga wax ni yëpp est-ce que kon Macky bëgg na Casamance audio baa ngi fi dama bëgg ngeen déglu ko dama leen ne mbir mi du question bëgg wala bañ loolu problème mu sentiment la man gëm naa ne Macky Sall bëgg ci xolam. waaye suñu xoolee réalisation yi mu def tey dañ ngeen ñu ne Bignona amul morgue département bu toll ni Bignona morgue bi doxul gis ngeen ay xale génn di defaraat ay yoon tey diggante Bignona ak Ziguinchor yoon bi ñu naan tooboor amatul nekkatul mais nag bu ñu seetee ci loolu rek naa ne Macky ci ay jëfam ak réalisation bëggul tooboor bëggul Ziguinchor waaye bëggul Sénégal tout court parce que amul fenn fu mu def lu tax ñu wax waaye bëgg na France bëgg na Chine bëgg na ang euh, Turquie bëgg na Maroc waaye bëggul Sénégal loolu moo ne woon sama tontu ba tax ma ne li mu wax plan de relance économique mënul relancer Sénégal ñetti at yi di ñëw ma waxaat ko ni ma koy waxoon assemblée nationale Sénégalais yi xaat toog xam leen ni dina métti trop xam naa ni métti na trop fi mu toll bis bu nekk daje nit mu ne la maa ko woteeloon waaye rëccu naa ko bis bu nekk daje nit mu jooytu. munoo génn ci di mbedd bi dox te duñ la tàllal loxo waxuma la mbënd mi waxuma la euh, école yi waxuma la paj mi waaye munoo génn ci mbedd bi te nit du la tàllal loxo ne la soo ma jàppal tey du ñu taal du ñu taal suñu kër loolu nag yéenewu ma ko Sénégal ndax sama xol Sénégal rekk ci ne waaye dama bëgg def ni ñuy wax objectif na Sénégalais yi xam ni loolu jeexagul fii rek Macky Sall mi ñetti at ak genn wàll yu ñëw Sénégal dina métti trop trop trop trop dernier mois priorité yi gannaaw bi ma waxee sëgg bi ñu war a sëgg pour demaat ci Sénégal wax ci plan de relance économique bi ba ci mujj mooy ñun dañoo am suñuy programme yoo xam ne macha allah la te kenn mosu ko gis ci politique fii Sénégal Sénégal yi wuyu ñu si mu am succès boo xam ne ba Touba barki dem kër sëñ si fu ma dem li may njëkk wax mooy loolu nga dugal xale yi. bu ci teggi sa tànk mukk rafetu nañ ko fu fu yàlla xam muy vacances agricoles patriotiques mu am succès bu macha allah créer jalousie yu bëri coono yu bëri loolu suñu priorité la dañ ciy jubluwaat gën a naatal mbiri parce que programme la bu ñu bëgg a saxal dak euh, euh, wéyal ko at bu ne lii ñu lancé woon muy don de yi ñetti weer yi daanaka presque mat na defoon nañ ko ñetti weer ci gannaaw ne woon naa leen ñetti weer yu ne lañ koy def kuy waa Pastef na nga waajalaat bu jotee rek ñu su ma nee prix rek yéen ñëpp jóg leen ñu dem ci poste ci ci ci banque de sang yi maye deret ba mu mat sëkk te bu mu doon prix bi bi ngeen déggoon nag bu nga xam ne suñu la nee prix nga wëlbati ko dem uti uti wàllu beneen bi mooy week-end patriotique yi dem di reboiser gis nañ yéen a koy def ci école yi yéen a koy def ci place euh, publique yi nañu continuer wéyal loolu ak di def sport beeg yu demee noonu parce que baax na ci. bu ci mujj mooy cours de vacances gratuites yi nga xam ne ñu ngi koy waaj a lancé ci 45 départements Sénégal yi enseignants patriotes yi ne ñoom dinañu ñëw xale yi ñu defal leen ay cours de vacances doo ci fay fukki dërëm loolu mooy suñuy priorité nañu concentré waat ci yooyu ñu ngi leen di gërëm leen sant ci seen déglu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.